des prix du concours général da doon jàkkaarloog taskatu xibaar statistiques, joxe statistique commenter résultats ou euh, concours général le concours général 2023 Nous ñu nous ñu concours général bu Sénégal le Sénégal ñu depuis 1961 cérémonie bu nga xam ne bu ñu atte pare at bu nekk ñu jël élèves yi nga xam ne ñooy def première ak terminale ñu def bokk ci concours général bi pour bokk ci concours général bi il faut nga doon élève bu nga xam ne am nga moyenne douze moyenne douze ci si classe bi nga nekk semestre bi nga premier semestre bi ba pare matière bi nga xam ne bëgg nga faa composé nga am fa note moyenne bu ëpp 14 loolu moo lay boole ci concours général mooy déjà dañuy jël xale yi gën a bi ci classe première yi ak terminale pour ci dem bokk ci concours général déjà bokk concours général rek lu am solo moo tax may encourager di féliciter candidats yi nga xamoon ñoom ñëpp bokkoon nañu def ci concours général bi mais concours général dañuy tàmm segg. ci ñi nga xam ne ñoom ñooy crème bi mooy xool crème crème école bi donc fii ren élèves yi première yeeg terminale am nañu fanweeri ñaaraat discipline yi nga xam ne moom foofu lañ def seen concours général bi liste naa leen ci tubaab sànq mën nañu wax ne am na langue yépp am na mat am na physique am na géographie am na histoire am na mécanique am na science de la vie et de la terre maintenant bu ñu paree def concours bi épreuve yi ñuy defee concours général il faut mu nekk mu nekk ci programme xale yi programme bi ñuy jàng première ak bi ñuy jàng terminale mais épreuve yi ñuy joxe ci li ñu leen di natte épreuve bi dañuy def doy doon épreuve bu nga xam ne dafa dafa difficile moo gën a difficile ak épreuve yi ñu leen di évaluer ci classe bi comme ñu gën a xarañ la ñuy évaluer il faut que tamit ñu yéegal ñu paré nak buñ leen noté pour nga am premier prix il faut nga am note bu 16 sur 20 pour nga am deuxième prix il faut nga am note bu 15 sur 20 pour nga am troisième prix il faut nga am note bu 14 sur 20 mën na tax que ci benn matière qui a un premier prix, qui a un deuxième prix, qui a le troisième prix, qui nous avons le 16. C'est ce qui Mais si quelqu'un a 16, qui a un premier prix. Si quelqu'un a 15, 16 a le 15, qui doit le deuxième prix. Si quelqu'un a 16, a le 15, a le 14, qui doit le troisième prix.

deuxième attitude il faut nga am note bu ëpp douze mais ñoom tamit ni ma ko waxee sànq mun nga am seize ci benn matière parce que am na ñeneen ñu la raw foofu nga am accessit premier accessit mbaa deuxième accessit ñiy def première mille six cent soixante junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak benn élèves ñoo doon def concours général primaire juróom-ñeent ci téeméer yi ak fanweer ak juróom-ñeent yi 939 ay xale yu jigéen lañu ñu góor ñi di juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar loolu loolu ñu gis ci jigéen ñi ni ñu baree ci concours bi moom la ñuy gis tamit ci terminal parce que terminal yi junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñoo ci composé jigéen ñi xale yu jigéen ñi mot nañu juróom ñaari téeméer ak fukk ak juróom xale yu góor yi mot nañu juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñett kon fii bu ñu xoolee tamit résultat yi gis nañu xale yi nekk ci série scientifique yi ñoom ñoo gën a bëri li ñu leen primé série scientifique yi ñoo nombre bi ñoo gën a tuuti mais ñoom ñoo gën a bëri I agree. parce que bu ñu gisee ni ñu décerner prix carrément décerner leen nga xam ne xale yi góor yi jël nañ ci lu baree bare ñoom ñoo ëppale parce que ñoom 63 pour cent lañu alors que jig euh, euh, ñu jógee série scientifique yi ñoo gën a bari 63 pour cent lañu alors que ñu jógee ci série technique yi ñoom 13 pour cent lañu. treize virgule six pour cent ñi jógee ci série littéraire bi du vingt trois virgule trente pour cent alors que bu ñu defee inverse bi la ñuy gis su fekkee ci nombre bi la parce que série scientifique yi candidats yi ci gën a bëri egguñu vingt pour cent autour de vingt pour cent la ñuy am mais là ci prix bi gis nañu ne ñoom ñooy gën a bëri prix